upp baax na ci laax bu tàng wàcc daanoo ca gën a gaaw waaye ñii day seeni wàcc dañoo mën nañu jóge asamaan rek daanu si àddina moom kay nag mooy defee dëgg rek na nañu wàccee gaaw lii bu doon match la rek ñu ne 2-0 lañ ko dóor kan lañ ko dóor ñu àndandoo yër xët wu njëkk journal yi pile yéenekaay bi laas Les Échos Le Quotidien L'Observateur Sud Quotidien Walfadjri ñoom ñëpp ñoo tey amee seen xët wu njëkku yéenekaay ak piicoo mbaaloo gi doxoon ci diggante l'état beeg ndawi réew mi laas ne ñu l'état ubbi na yoon yi Les Échos mel ne ku koy feelu naan ko liikee ak deltu ginnaaw dëgg rek lay firnde deltu ginnaaw kese rek lay firnde ndax moom kay dafa mel ne rek ku li lépp rek sànni Walfu mel ne ku koy feelu naan ko liikee nag moom mooy liberté dëgg rek ne Sénégal daa mel ne da kuñ tëjoon ci nguna wala kaaf ginnaaw janoog taskatu xibaar yi amoon na ki démb ci suba lañ fa tënkee mi ci xët wu njëkku laa turbine ubbil yéenekaay bi l'état du Sénégal far na jëlaatub dogal ubbi waat lépp lu jëm ci dem ak dikk bi rawatina ci diggante dëkk ak dëkk yi waaye yemu ca ubbi waale waale la lépp lu jëm ci wàllum restaurant ak salle de sport yi moom kay bu fa yemoon rek mu neex ne l'état d'urgence bi ñu doon ngawti ngawtee ci réew mi moom kay nag far nañ ko wàññi waale di couvre-feu boobee li ko dalee 11h ci guddi ba 5h ci fajar waaye xalam demoon na bay neex gum nga far dog far nañ ci jàppaale lu toll ci ñaar téeméeri gone Sénégal li ko nar a dal seddul ne bu moytuwul bopp boppam atum corona bi dina fi am du samay kàddu ubbil xët wu njëkku journal bi ak docteur Soxna docteur Soxna mu amee xët wu njëkk l'observateur docteur Soxna nee na neexul ba neexul waaye l'état du Sénégal li mu def dañoo bàyyeeg suñu bopp lii kay nag moom mooy xanaa dem reen rek virus baa ngi noonu lu golo xam ne ko boote doomam waaye kiñ bàyyee boppam beddi sànni ne kumba am ndey kumba amul ndey mi ngi ci xët wu njëkku laa turbine ubbil xët wu njëkku journal bi di Bougane Gueye Dany Bougane njiital des médias di seen TV Sénat contour des médias lu ko waral ndax waa Sénat kat nee nañ ñoom kat moom di mbootaay gi séq lépp lu jëm ci wàllum télé yi nee nañ waa Sénat daal ñoo lakkalu witt rek njiital média lii di waa seen TV ñoom kay nee nañ rek lan moo waral rek manifestation yi doon am démb ci guddi lan moo waral rek ñu koy wane ci télé bi rawatina ñu koy def en direct lii day moo metti waa Sénat Les Échos moom ne ko waaye kiñ koy tuumaal moom aw laa miñam dëmmul di njiital des médias Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany nee na lu ngeen xam def leen lu ngeen man tey itam def leen Diané nee na ci page 2 bu Les Échos lu ngeen man def leen lu ngeen xam tey itam def leen man moom ku ma jàpp yóbbu te itam ma deseeg sama ngor ak askanu Sénégal ah man nag bugaan mii nag li mu wax rek mooy dëgg moom kay nag moom doy na waar kon nag Ousseynou Ndiaye tëjal